asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet ñu suivre ci luttetv.com ak euh, Equivox ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi fii si Sicap Amitié ah ki ñu fi woo mooy Boubacar Niang Boubacar Niang nag suñ ko waxee ñu ngi ko xamoon ci journaliste buy bind yore xalimaam tey nag mu ñëw dugg si lamb en tant que promoteur yore benn structure bu ñuy wax Ama Events journaliste nekk suñu làmba tey nag ah mu ñëw pour jàppale lamb xëy na kon ci beneen côté woo ñu fi. fi nga xam ne nii moom mooy caisse de sécurité sociale bi ànd ak ay partenaire yoo xam ne ñoom ñooy euh, ah, Jàmma Life ah Jàmma Life di benn ONG boo xam ne day yëngutu ci mbirum jàppale ay néew gi doole mbirum social ak yu mel ni ki noonu fu nekk ñu nekk fa ci àddina ba ñoom tamit ñu leen di nuyu bu baax a baax ñoom waa Jàmma Life mu tëgg combat boo xam ne nag combat ay espoir la mën nañ ko wax parce que kii nekk sama góos mooy caatu ngéwél bokk ci xale yi nga xam ne yaakaaru làmb lañu vraiment muy xale bu am xorom mën a bëre nekk yoof ki mu ko seqal tamit di fils de Zallo di xale bu mën a bëre moom tamit jóge ci combat spécial bu yàggul daan ko nekk école de lutte Cheikh Mbaba nekk fi nga xam ne tamit mooy école de lutte waa nekk école de lutte Cheikh kon loolu moom la fi tëgg wooñu fi ak tamit benn mbër boo xam ne mooy rhinocéros moom euh, ñu ngi koy wutal adversaire mais defe naa amaguñ ko mais l'essentiel que xanaa mbër yi dinañ ko jël ndax kenn wartoom nangu Lamine ñuy bàyyi amaasam di taxawal noonu te kenn du ko jël kon ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu tamit manager yi As mu ngi fi toog ak ki nga xam ne nii mooy Maam Les ñu koy nuyu bu baax a baax Cheikhou Omar Equivox maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñu fi toog ak lamin sama rakk sama Cheikh moom du ma ko fàtte mais di nuyu Boucar Diouf bi nga xam ne nii tamit moom moo fi toogal waa Jàmm Live kon noonu la demee léegi nag balaa ñuy sori wala ñuy dem muy kii rek Boubacar ñaa Boubacar sax mooy tëj mais naa jëkk ci mbër yi Lamine yaakaar naa ci ñoom laa war a njëkkee caatu ngéwél caatu ngéwél yaay caat ci ngéwél gi wala maa ngi waa doom yaay ñu ngi lay fay di sant yàlla di julli si yonente bi di gërëm sunu ñaari waajur di gërëm sunu sëriñ sëriñ Seex Fall ngaa ci di nuyu Ngathien yëpp di bëgg assistance bi teew fi yëpp di nuyu sama adversaire fils de Zalo di nuyu ñëpp waaw. di nuyu waayoo bu baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg si loxo xalifa général Baye Ablaye Thiaw di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér jaajëf ziar nañ fils de Zallo maa ngi lay bëgg di la ziar tamit. waaw ah, maa lay bëgg xam maa lay nuyu bu baax. alhamdulilah bisimilah inna laa ne wala yàlla ginnaaw bu sant yàlla julli seen bi sang sang yi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu gërëm suñu ñaari waajur nuyu assistant bi toog ñëpp xam nga nuyu promoteur bi Boubacar ñaar di ko ñaanal yàlla lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal nuyu sama papa As sama manager moom day sonn si di ma jàppale xam nga nit fi teew ñëpp de nuyu ñu ma ñoom Thiat xam nga ñoom Balde ñoom Xaadim xam nga nuyu sama bu baax di sant sama yaay bu baax bu baax xam nga maa ngi bëgg sponsor bi xam nga waa Jama Life xam nga di leen ñaanal yàlla lu ñu bëgg yàlla na ko yàlla defal xam nga ñu fi teew ñëpp daal xama nga ba si kanam waaw nuyu sama adversaire xam la xam nga ñu war a bëri maam moom xam nga première sortie grand combat ñu ngi koy waajal bu baax maa samay mbokk xam nga ak sama entraîneur ñi ngi entraînement ñi ngi waajal bu baax daal xama nga ko ñaanal jàmm suur ba yàlla may ñu ndam incha allah waaw yàlla may la ndam may la ndam ci caatu ngéwél mii est-ce loolu lu yomb lay doon ci yow waaw am na si yaakaar bu baax parce que boo gisee fi ñu jaar xama booy dàq bëri si lamb yëpp boo gisee man maa leen daan xama kon nag xama waaw ñun gëm-gëm la nga koy boole teg suñu bët dafa sori ñun su roi ba lañ teg suñu bët ay doomu bër lañu sama def na fi lu ne man dama ñaan yàlla xama ñëw jaar jaar xama teg naa waaw teg naa sama daal fu sori daal incha allah ko ci ñi nga teg sa bët waaw boole naa ko si parce adversaire la comme adversaire rek xama parce que ndaanaan la champion la dama ko koy mais mais man maa ngi waaj bu baax daal maa waaj bu baax bor bi suulee daal ni ma koy ñaan na dëggal boppam incha allah bu dëggalee boppam rek lam ji du yàgg xama te bu soobee yàlla nan mobilisé lu garaaw mm. bu ñëwee nan fecc xama animé stade bi xama yàlla may ñu ndam incha allah waaw dégg wax de nee na bëtam ca roi ba la ko teg kon na ko gars yi doon waxee bëtu med xaw ma bëtu tan jënd medu melentaan dafa mel ni foofu laa dégg ay waxam de loo koy tontu waaw man li ma koy njëkk tontu mooy affaire de doomu mbër na ko jël teg ko fële roi des arènes Modou Lo la amul papi mbër amul yaay mbër amul maay mbër bàyyi gëmal sa bopp sa paapa li muy def wàllam wéy na man ak yow la boo dëggalee sa bopp dinaa la teg lu bari doole yow fi de Zalo du ma wax yow sax suñ faal baax na bëgg caat waxal ak moom yow itam moom daa wax waxal di non booy bi daa yàgg topp naan jox leen ma caatu ngewel jox leen ma caatu ngewel te li naan ba est-ce que yaa ngi may dégg teg yi li muy xeeñ di woo ko. Ah. waaw li muy xeeñ di ko. te bu bés baa dinaa ko tegal di ko xaar paraake la yaakaar bu <laughs> barki sëñ Ba mu wax <laughs> su ma la déggee moom maanaam moo lay wër di mais est-ce que jàpp na da ngaa nooy ba tax mu lay wër di laaj. waaw mais est-ce que xam nga ni caatu ngeewal képp kuy mbër wala képp kuy amateur xam nga ne nooyul xale laa aw ma maay mbër aw ma papi mbër aw ma dara sama génération dama ñëw wane sama bopp forcé nit ñu sama bopp. wane su mooy preuve est yaay comprendre moom moo ma jiit si làmbu arène mais bu demee ba muy bay gëstu di ma laaj kon sii que ni man am na loo xamante ni wane naa ko man daal li ma ñemee li ma ñemee fii laa ko bu bés baa na taxaw dëggal boppam. ñaata combat nga bëree ren. ren bëri naa ñaari combat. ñaata benn victoire laa benn défaite sama première sortie ren damaa ñàkk. yàgg Ada Fass ok wax nga dëgg. waaw sama daan ren. mais ñu ngi sant yàlla bu baax ndax bi mu daanee bëriwaat nañ daan euh, maa daan booy jóg bu benn baraak. ñu ngi waaw ñu ngi sant bu wér daal xam waaw li ko wax daal Fils de Zalo li ma ko mën a wax mooy jour incha allah na taxaw dëggal boppam bu dëggalee boppam làmb ji gëm naa ne du yàgg. kii itam da ciy bëre jaamu séeréer bi ah. Rino sumay képp. maa maa ngi sant ñëpp waaw wax moom ma néew ma ko noonu bu baax waa. lu neex sax bu ma dugal Boucar Diouf Boucar Kaay parce que tamit. te normalement war na ci joxe kàddoom waaw kaay nii as maa lay nuyu di la ziar maa ngi lay fay di leen di delloo ziar assistance bi yëpp di nuyu sama xarit Boubacar Niang sama mbokk ménager yi fi teew ak mbër yi fi teew di leen sant di leen gërëm di remercier Boubacar Niang parce que moom nitu làmb la te lii dafa wane da ko gën a confirmer di remercier tamit sponsor bi nga xamante ne si tey moo ko accompagner may ko doole may ko fit ba mu mun a Euh, marqué empreinte am ci làmb di sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur di sant sama sëriñ Seydou Mahamadul Mansour Sall xalifa sëriñ Abbas di ko ñaanal yàlla gudd fan wér. di nuyu famille làmb yëpp comme ni ma koy waxee toujours rek ñu ngi lay nuyu bu baax Babacar. sa liggéey Sénégal yëpp ñoo ngi ko ànd di ko rafetlu. ñaari xale yi toog. muy caatu ngéwal ak fils de Zallo dañu bokk ci espoiru làmb bokk ci yaakaar làmb di yoo xam ne bu ñu jógee mbooloo ñuy ñaari champion di leen ñaanal yàlla que le meilleur nañ la. ñoo ngi leen di fay. man li ma lay laaj mooy ginnaaw Ama Evans ñaari mbër yi ñaari xale yi noo leen gisee Fils de Zal caatu njël de espoir u euh, lii innovation la. te innovation de taille la. te nit kenn du ko xeebal bësam. surtout muy bésu Boubacar Niang ak ñi ko jàppale. bu du woon ñi ko jàppale du dem. parce que ñi ko jàppale aussi boo xoolee taxawaay bi ñu ci taxaw. ku yàgg dimbali doomu aadama fekk ay xale ndaw di leen dimbali yoon woowu boo ko bàyyiwul yàlla na leen yàlla may yokkute yàlla na leen yàlla may ndam yàlla na yàlla defal jàmmalaay events global events bii yàlla taxaw leen ca kaw ca kanam euh, di wax ci ñaari xale yi ndax ku ne caatu ngéwél man mi bëri naak sama poulain saban poulain far bu jar ku daanoon caatu ngéwél moo daan far bu jar kon de xam nga ko yow maa la ko wax te lu ma la wax ci làmb nga bind ko téere <laughs> ah, Euh, fils de Zallo aussi mm-hmm. du question sama papa nekk na mbër mm-hmm. am nga droit nekk mbër sa papa bu nekkee mbër tamit entraînement ba mbër war a am moom mii wane na ko mm-hmm. ndax ku ñeme coono la ku bëgg li muy def la ku gëm sport la ku bëgg entraînement la caatu ngéwél mu jël responsabilité moom mu jël responsabilité muy nekk ñaari xale yu am mbooloo am public ñemee bëre ñemee jëflante parce que gisuma kenn ci ñoom ñaar kuy dellu gannaaw ku ñeme raak lañ ñoom ñaar dañuy raak ba naaw buñ ko waxee dañ ko def buñ ko wax dañ ko def. kon mën nañoo xaar combat bu gaaw. non combat bi day neex. ok combat bi Babacar. waaw caatu ngéwél waa Yoof dañ ko yónni yàkkante ko. ok kii nag moom. Mhm. baayam dafa am lu mu ko yenn. ne ko lii ma gis sama kanam nit ñëpp teg ko seen bopp bëgg naa ko teg ko seen bopp. donc nag muy combat bu neex di journée bu neex. Mhm. di gërëm aussi Boubacar ñaa mhm. xam nga kuy wax ci làmb fekk nit kuy dundee làmb dugg si ci làmb lii mu dugg dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. kii bu buñ nee doomu mbër la parce que Zallo mooy papaam Zallo yaakaar naa ku ne xam na ko ci lutte simple wane na ci boppam ndax mooy ki daan Yékini ci lutte simple su ma jumul 96 ah kon defe naa lutte avec frappe tamit wane na bu baax baax soo amee doom mu nekk mbër muy doomu mbër kon war nga mën a xalaat ñu ne ëllëg war nga mën a yegg fi sa papa yeggoon mais est loolu doon naa diwee sama baay rek moo koy may waaw affaire liggéey la rek parce que ñun boo gisee maanaam nit ñi kenn mënu leen nax ñu ngi seetaan samay combat saa bu ñëwee naay neeta booru sulee ma def fula ak fayda daan ñibbi xam nga maa ngi dégg naa mu naan maa ko laaj. yaa koy wër di laaj te jot nga ci moom. man du ma laaj kenn kii Fallou Ndiaye bëgg na tëgg suñu combat maama mu daw mu daw la. mu daw mi ngi nii. Mm-hmm. waaw. man bëriwuma lu may wax man man bëriwuma lu may. kon de mel ni jàpp nga ko léegi xanaa. non man bëriwul lu may wax de lu may wax de. baaba man dama entraînement chaque jour xam nga am fu ma teg sama bërë barke Seydina Mohamed ñu yaakaar si man xam di ko sama ay la affaire yooyu noonu loolu dexewu ma si ba maay dugg si géew moom lay dépendre nga jàpp ko daan incha waaw sa waay ne na yow seen combat dañ ko yàgg bëgg nga bañ Fallou Ndiaye eh, di ko nga nga ruux loolu wax. déggoo ma kii bi ma koy proposé moom mooy topp dëkk bi di ma laaj te kii nii daa am lu ma boolee moom. lu leen boole. li tax ma jël ko. sama saison passée ni mu demee li nga ma laaj ma expliqué la ko saison bi ma am si benn défaite benn victoire looloo waral ma jël ko mais kii xooluma ko sax li muy wax. waxama bari Fils de Zalo mii. Hmm. barki Serigne Bamba bu taxawee dëggal boppam man moom duñ bëre ko mbaa bu yàgg. barki hmm. alxuraanu karim. ñaar ku dàq bëre. ki dàq bëre. yàlla na ko yàlla may ndam xaw ma ku daaxu bëre waaye ki daaxu bëre rek yàlla na ko yàlla may ndam. ñaata combat nga am si arène yow. man am naa huit combats. ñaata victoire. six victoire deux défaites. yow ko am naa neuf combats. ñaata victoire. sept victoire deux défaites. ok <laughs> ko dàq fecc. kii maa ko dàq fecc. Ah. man si man si barke Seydina Mohamed kii maa ko mbooloo. ñoo ñoo sama ko ñoo sama combat bi passé gis nga leen. sama combat kontaan na si man parce que li mu waroon def yëpp def naa ko man daam ñu sama ginnaaw muy Bool. nga foofu après ma dem ci moom. waaw li ma tàggoo mooy damay sant yàlla rek xama di nuyu ñu fi teew ñëpp waaw ma ñaan yàlla ku ne nga bëgg yàlla ko yàlla defal xama di woo Paco Jackson Thiam xama day jëf sama combat Bamba Fall xama ñoom Cheikh Ba waa groupe Mbappé maa ngi di bëgg bu baax ay ñoom Zera maa ngi sant waa Medina bi yëpp xam nga Gueule Tapée Grand Dakar xam nga di ñuy waa Bawol gi yëpp waa Réfane waa Touba waa Touba xam nga waa réew maaw waa Njaan sew boo xam nga maa ngi bëggee ñëpp daal di bëggee waa Casamance xam nga waa Guinée maa ngi sant waa fii di sant waa Touba waa Fatick kilifa di ma ñaari maa di bëggee waa Touba waa Tiwaawoon di bëggee Mbaye Diop bu baax nag di sant sama yaay bu baax xam nga di ñaan yàlla na jàmm yàgg waa maa ngi waaj daal di ñaan yàlla yàlla su dugg bisimilah gën si waa di bëggee rek maman Lo maa ngi koy bëggee États-Unis maa ngi koy sant bu baax jàmm si combat bi xam nga di nuyu sama papa yi ne si kaw di leen woo xam nga ñoom Pape Lo Omar xam ñoom Moussa Lo maa ngi di woo bu baax a baax a baax di woo non moom li mu ñaan yëpp yéen ay ay amateur ngeen ay ay journaliste ngeen mais ay amateur ngeen kii li mu ñaan yëpp moom daanu na li mu def nii tudd ñu war a tudd fii ay waa Touba waa Mbacke xaw ma waa Diourbel fi lay yem kii du bu toog plateau du wax waa man maa ngi di nuyu waa Yoff <laughs> di nuyu sama sama mag sama papa bàyyaako mu ndaw di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu sama ndijaay Thiaas sama ndijaay Pambay di nuyu sunu waa kër bu baax di nuyu sama waa koñ bu baax di nuyu yoof gépp maa lay bëggee Boubacar. Babacar euh, maa lay fay euh, maa ngi nuyu ñëpp ñu fi nekk euh, di jiital ñu bi si waa Jàmm Live d'abord ONG Jàmm Live nga xam ne vraiment ñoom dañu ñëw si implanté wu fi Sénégal mais comme ni ko monsieur Bokar Diouf waxee ñoom ñu ngi fépp. te leen tax a jóg du leen lu dul xamoo nga combattre pauvreté am seen i méthode quand même ak seen i système ak seen stratégie yoo xam ne xam nga pour vraiment nit ñi buñ si adhéré dinañ leen jàppale ku ne war a mën a am dara euh, je pense que ñoom incha allah yàlla dinañu may yeneen jataay yoo xam ne ñoom dinañ gën a expliquer euh, seen rôle seen nit ñi seen fonctionnement seen lépp boo ko defee ñëpp dinañ dañ ko comprendre Sénégal yëpp xam ko rawatina waa axlu làmb nga xam ne ñun yàlla def na comme ni nga ko waxee sànq ah euh, jéem a liggéey ak képp ku nekk si làmb muy mbër bu ñëpp ah promoteur ñëpp vraiment tàllal leen suñu loxo di sponsor ñoom ñëpp comme sa jéem a liggéey jéem a xool lu nu mën a yokk si làmb ni ko aas di waxee ku ku ku yokkul yaa wàññi yàlla bu ñu wàññi voilà léegi looy tëjee kon ñaari xale yi nga tëgg ni ñu ngi nii taxaw muy Thiatou Nguéweul ak Fils de Zal waaw muy comme ñoom ni nga ko waxee ah muy combat bu am solo xam nga di si profité nag di si nuyu ñoom euh, grando yi waaw ah, comme ni ko As waxee sànq ndooy bu taay si nga Pape Diagne As si boppam nga xam ne vraiment ñoom eh, ñoo si ñoo si sonn loolu ah si affiche bi wax dëgg yàlla man dama da ñoom ñoo def lépp. ragal nga barki Seydina ragal nga bu subaa ragal sa bopp yow ragal.